wax man na xolof laay wax man dama fi teewal jigéen ñi teewal fi yaay yi lépp lu président wax Ousmane Sarr wax ko moo Khady Cissé wax ko ñun yaay yi ñoo ko moom ndax ñun ñoo yenu la jëm loolu ñu yor di ko wax ci ñun la jëm muy saafara yi nga xamante ni ci école bi ci hôpitaux yi ci euh, dëkkuwaay yi ci yoon yi lépp lu ci nit di doxe rek jigéen la yor ka nga xamante ni moo tax mu jaar fa di ko dox ñun ñooy yaay yi ñooy mag yi yi ñooy bàjjee yi ñooy tànte yi ñooy lépp may sensibiliser sama mbokk jigéen ñi di leen wax ne saafara bi nekk ci suñu réew mi bu ñu bëggee mu faj nañu jël livre bi jox ko suñuy doom yi nga xam ne ñu ngi ci université yi jàng gis li xew ba ci Demba Ndiaye ñu ngi leen di jaale ñi nga xamante ne ñoo ci ñàkk seen bakkan te xamuñu sax lan moo tax ñu ñàkk seen bakkan wax dëgg yàlla bëgg-bëgg la ñu demee rek ba tax ñu egg fi ñu egg ñu leen di ñaanal yàlla yàlla xaral ñu ci àjjana te jéggal seen bàkkaar di wax ñu jigéen yàlla yàlla wane tey la wane xam fi ngay teg sa tànk ngay njëkk a def pour mën a yegg fa nga jëm bu ñu sensibiliser woon suñuy doom wax leen fi ñu war a teg seen tànk ñu teg ko ci pax moo xamante ne dara nekk ci te sërëx la ñuy ku sërëx si pax rek ñàkk nga ñu sensibiliser suñuy doom sensibiliser suñuy jëkkër sensibiliser suñuy papa ci biir kër yi doonte ñooy yaay yi ñooy doom yi ñooy sër yi ñooy bàjjee comme ni ma ko waxee jigéen mooy nga xamante ni mooy racine bi yor àddina ndax lépp ci ñun jubal bu ñu baaxalee ñu baax may ñaan bépp jigéen bu toog ci saal bi boo jógee fi nga xam ne am na fukki nit yoo xam ne dénk nañ la ko nga wut leen sensibiliser leen la ñu bëgg ci Sénégal la professeur El Hadj su ngeen gisee livre bi mu ne 555 benn cinq bu njëkk ci sama jàngat nga xamante ne mooy juróomi piliers yi Sénégal taxawal la xamante ne buñ ci tegee suñu naan yaakaar naa ne li ñu bëgg dinañ ko am saafara bi dina faj beneen cinquième bi mooy cinq méga régions yi mu wax Sénégal dañ ko war a xaaj juróomi xaaj xaaj bu nekk ñu jox la sa àq ak sa yelleef la nga fa mën soo ko liggéeyee ba am ko fa gagné sa bénéfice yaakaar naa ne da nga mën a liggéey loo xamante ne di jot say doom di jóge ba Tamba di ñëw université Dakar di jàngi wala ñuy jógee ba Ziguinchor di ñëw université bi fii di jàngi dëkk bu nekk war nga am foo xamante ni fii la sama njaboot yam nga mën na superviser ndax alalu ko la joxe ko ci manifestation yi ñii seen doom yi nekk fii Dakar di jàng ñu ci ëpp ñu dëkk Thiès ñu dëkk Ziguinchor te bokk ci parti bi nelawuñu seen xel dalul ndax seen doom yaa ngi ci université Cheikh Anta Diop ñu tëj xamuñu ci lan lañu nekk kon cinq méga régions yi am na njëriñ cinquième benn benn cinquième bi nag mooy cinquième président de la République du Sénégal yàlla na ko yàlla def may ko suñu président de la République yàlla tegal na ko ci bopp réew mi ndax Olof Ndiaye damay dégg ñu naan lekketu kase naxu ci béy mais damaa bëgg ñu jël leketu kase bi ndax ci béy bi ba béy bi ci biir kaaf bi ñu soog ko mën a jox lekk mais boo ko joxee lekk ci benn bi boo ko béy bu am jàngoro nga ñàkk sa léegi nañu nangu ñu di ñu nax nañu nangu ñu ñu wax leen waaye nañu xam li ñuy nax lan la le professeur El Hadj Ibrahima Mbow parti bi nga xamante ni mu ngi sosu depuis 2007 am 16 ans di parti di parti bu am fulla parti bu am fayda parti bu am dignité ñu koy wax buntu bi muy buntu koom buntu naataange buntu buntu baabu xëy ñëpp mën cee jaar gis ci seen bopp muy mag bi di ndaw bi di jigéen di góor kenn ku ci nekk wax mën a gis sa bopp ci parti bi may ñaan bépp jigéen ci ñun xam naa ni buñ ko ñaanee suñuy borom kër danañu ko nangu suñuy doom it danañu ko nangu nañu liir livre bi wax ne li ci nekk di ñaan yàlla suñu borom bi dara tawul yàlla na yàlla indi jàmm ci Sénégal ndax violence mayewul dara ku ko weddi na ko laaj ñun jigéen ñi bu ñu bëggee ñaan suñu jëkkër yi daal waaye bu ñu la ko laajee ci fitna duñ ca yegg réew na ku ko laaj ci fitna jot ko ci fitna fitna rek nga koy téye nañ def comme le professeur El Hadj Ibrahima Mbow mu ngi ci dal ci ci jàmm ci salaam buñ ko jotee danañ ko yoree ci ci téye ci jàmm ci salaam di ziar ñëpp di wax ne dara yàggu tey ak suba lépp benn waaye dañu ñaan yàlla yàlla yóbbu le 25 février ñu jiital